Sénéinfo International. Sénéinfo International bonjour daleen ak jàmm si li gën a fes si euh, euh, yéenekaay yi. tey jii euh, mercredi 15 novembre 2023 ñu njëkkee rek si le journal Sud Quotidien bi nga xamante ne def na benn gistu si université Cheikh ante Diop dans son titre nee temple du savoir au désordre indescriptible daanaka jàpp na ne euh, université bu njëkk ba ak léegi dafa am différence parce que université bi nga xamante ne moo doon former ay cadre yu bëri ay cadre africains internationaux dem na ba léegi violence lañu fa constaté ak lu fa am léegi moom donc journal bi di si euh, désolé ne vraiment euh, situation bu fa am léegi daal xam naa ne daal changement daal am na boo xoolee si si université Cheikh Anta Diop par rapport ak ñu jëm léegi ci immigration clandestine ba tey ci journal bi euh, nee na immigration irrégulière via le Nicaragua l'ambassade des États-Unis décortique le mal et livre sa recette donc ce journal bi aussi def na benn gëstu bu yaatu si nga xamante ne mooy mooy yoon boobu nga xamante ne léegi ñu bëri ñu ngi koy emprunté sénégal yu bëri ñu ngi koy emprunté di dem États-Unis donc ñu ne euh, ambassade bi nee na ñu ngi selon un conseil de l'ambassade ki nga xamante ne dem si ambassade bi lay liggéey nee na moom euh, def nañu ambassade bi jël na ay matukaayam parce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy agence yi nga xamante ne ñoom ñooy yóbbu euh, euh, yooyu wala ñu ñooñu immigrants yooyu bëgg a dem États-Unis donc nee na jël na ay matukaay yu baax a baax pour cibler agence yooyu mun leen identifier parce que jot nañu sax ku dem foofu sax bu egg sax dañ leen dellu si waat en même temps aussi conditions yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy demee dafa doy waar ba nga xamante ne ñoom bàyyi nañ ci xel te ñu ngi siy def ay jéego pour vraiment identifier. Euh, euh, les ces gens là parce que ñoom dañu jàpp nañu ni ñooñu c'est c'est c'est des trafiquants d'êtres humains te loolu loolu dañ ko war a bàyyi donc jàpp nañu ne ambassade États-Unis euh, mu ngi siy gëstu mu ngi ciblé ñi nga xamante ne mooy ñooy malfaiteurs yooyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàllale immigrants yooyu immigrants yooyu di dem fi nga xamante ne moom mooy États-Unis donc ñu des rek ci journal bi ñu ñëw ci présidentielle 2024 ki nga xamante ne moom mooy Déthié Fall nekk candidat à la présidentielle moom nee na démb def na benn point de presse moom xamle na ne moom il arrête euh, son parrainage donc moom nee na il a atteint son quota bi nga xamante ne fixé woon nañ ko waa tous les candidats à l' élection présidentielle moom il a dépassé le cat le quota parce que moom def na ba 3500 euh, parrains te ñoom quota boobu mu ngi laaj 2000 parrains donc moom nee na il est temps jot na léegi moom arrêté na euh, parrainage bi donc voilà ñu jàllale si beneen journal. ñu ñëw si les les échos les échos bi nga xamante ne moom dafa génn gën a fësal euh, si xëtu yenn ëttu yenn kaayam ki nga xamante ne moom mooy euh, Ousmane Sonko nee na Sonko c'est une citation directe à Thiendella Fall donc pour ñàkk participation wala pour refus de euh, refus de du patron de la DG de remettre les fiches de parrainage. Sonko ak ay avocat am euh, porte na attaque nañ ki nga xamante ne moom mooy Tine la Fall donc nee nañ dañ koy poursuivre pour coalition de fonctionnaires atteinte à l'autorité de la justice et discrédit sur une décision de justice donc ñu ne le leader ñu ne le leader du PASTEF en réclame 2,5 milliards au directeur euh, général euh, des élections donc ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko mu ngi réclamer 2,5 millions de francs à Tiendela Fall parce que moom jàpp nañ ne war nañ ko remetr Euh, fiche de parrainage joxuñ ko ko donc euh, ay moom ak ay avocat am ñu ngi koy réclamer deux virgule cinq euh, milliards de francs CFA. ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay bi muy le soleil le soleil aussi ñëwaat na aussi si les nouvelles infrastructures donc nee nañu président Macky Sall dot Kédougou comme ni ñu leen ko waxee taay yi rek moom loolu moo occupé actualité bi tournée économique bi nga xamante ne Macky Sall mu ngi koy wéyal donc tey demoon na démb Kaolack tey mu ngi si yeneen zone Kaffrine ak Fatick donc. tey jii euh, euh, avant mooy jógee euh, fay fi nga xamante ne moom mooy Kédougou def na li nga xamante ne moom mooy inauguration waaw aménage aménagement de Bembo Xosanto Sabodola Kayang donc loolu moo la doon def pose de la première pierre démb def nañ aussi construction d'une grande mosquée aussi inauguré nañu inauguré nañu aussi tronçon Kédougou Salimata donc loolu bokk na ci vraiment jéego yi nga xamante ne Macky Sall teg na ko foofu noonu ci Kédougou ñu jàll ci beneen yéenekaay yi euh, ki nga xamante ne moom mooy La Tribune aussi ñëw nag encore si Benno Bokk Yaakaar nee na Benno sur une mauvaise pente la rébellion s'intensifie contre Amadou Ba donc nee nañ Amadou Ba léegi dafa mel ni euh, ñu bëri euh, ñu ngi koy xeex boo donc ñàkk juboo bi nga xamante ne du ñàkk mouvance présidentielle bi ñàkk na ko juboo nekk na loo xamante ne lu doy waar na parce que dañu ne dañu ne dans la mouvance présidentielle tout le monde se soupçonne daanaka boo xoolee si mouvance présidentielle bi kenn walwatul kenn léegi euh, Benno dans une mauvaise posture à quelques mois de scrutin donc à quelques mois de scrutin ñoom waa Benno jubóowuñu te ñu ngi soupçonné gi nga xamante ne moom mooy Amadou Ba mu nekk lu xaw a doy waar si seen euh, posture. ñu des encore si journal bi rek ñu gis ne euh, dañoo fësal ne moom moo. Euh, rey benn maître coranique am par vengeance parce que nee na traitement bi mu ko doon subir loo foofu au niveau si daara bi moom moo ko métti ba mu vengé wu dem rey ki nga xamante ne moom mooy koy jàngal alquran. ñu jeexale euh, ñu jeexale si euh, l' observateur l' observateur aussi ñëwaat na rek si nga xamante ne moom mooy les affaires publiques la gestion des affaires publiques mandat expiré illégalité continuité donc voilà mu ngi noonu comme tey ngeen ko gisee nii mais. journal bi aussi gën a encore ci administration peut-être censée bi nga xamante ne euh, wax naa ne man man euh, Sonko Sonko il a été transféré euh, sur la recommandation de son médecin traitant donc ñu jàpp ne selon l'administration pénitentiaire comme ni ñu leen ko waxee euh, Sonko dañ ko transféré parce que médecin traitant bi moo jàpp ne moo jugé ne pour Sonko recevoir ay soins yu baax donc il faut que ñu transféré ko au niveau de la prison de du Cap Manuel donc loolu la journal bi xëy fësal ci itam bu njëkk ci yéenekaay yi.